Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur si mbokk yi xarit yi ñun ñuy baaxoo di yéene xibaar fii ci suñu site bile Sunugal 24 point net comme ni ñu koy baaxoo di defee ci suñu émission bile ñu di pee xalima bu ñëw. sa su ne di dem di wëri ñi nga xamante ni yàlla daf leen may ab xam-xam te ñu si jëflante ak doomu adama yi ngir seen i jafe ñoo ñi ko ay di wax ci li nga xamante ni mooy actualité ak lépp lu nga xamante ni dafa soxal euh, askanu Sénégal tey ñu am mbégte bu baax di dalal euh, marabu bi nga xamante ni moom laay woowee ni moom kenn naa tablewu ko surtout ci li nga xamante ni moom mooy gis li nga xamante ni moom moo ñëwagul Cheikh bi bala ñoo dugg ci laaj tontu yi rek ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. waaw sëriñ bi ñu ngi lay fay bu baax di wax aousubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wala xawla wala quwata illa billah al aliyil azim ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi nuyu sama mbokk soos yëpp di wax mbaadin mbaadin kóolu anaka mooy laalu mbaalu jay la mbaal tantu la di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Bocar Euh, jërëjëf si yu sell yu tedd yooyu mais cheikh bi euh, euh, mooy li muy wax sama mbir yëpp man maa ngi teg ci tur lépp lu may def tur moom laa koy defee. ci laay seetee ci laay defee lépp loo xam ne bëgg naa ko def. Mm-hmm. bépp soxla boo xamante ni doomu am na ko. man sama lépp wàllu turu yàlla la ba ci wàllu seet gi di wàll di wax loo xamante ni day faral du yegg seegul ma ci wax sama sama sama samay kàddu loolu yépp ci turu yàlla ko teg man sama mbir yépp wàllu turu yàlla la ah, alhamdulilah léegi cheikh bi dañuy dugg rek directement ci li nga xamante ni mooy bu xëy Sénégal mm-hmm. mm-hmm. bi du fi ñëw. waaw man de ba ma xëyee ba léegi sama téléphone day sonné ci loolu parce que bëgg nañoo xam ne ñu ngi may woo li ma laaj sëñ bi loo gis. Mm-hmm. waaw li war a li ma ci yokk benn mbir la liñ gis. képp ki borom xam-xam gis nga ko mooy équipe bi am na ay xeex yu ci nekk. Mm-hmm. ay xeexu baatin mi ngi ci équipe bi. Mm-hmm. waaye waxuñ ne nag solution mun a solution mun na am. Mm-hmm. mais am na yoo am na loo xam ne buñ fa jaaree yàlla mën na leen dimbale mais ay sarax yoo xam ne ñu war a génne la. wax naa ko dinaa ko wax fokki gëlëm ak benn. buñ ko amee dinaa la wax bu su nekk fuñ koy defee ak nuñ koy defee boole ko benn nagu weex kenn mënul tee ba coupe bi du fi ñëw mais su fekkee nag loolu génn xeex ne fii ba léegi vraiment daal euh, li ñu wax day day maam suñu mbokk la ñoom suñu mbokk ay ay borom xam-xam lañ mais liñ gis ne xeex yooyu nag dañ mooy li ma la wax ni incha allah buñ ko defee yàlla mën nañ dee parce que ñëpp ay Sénégal lañ buñ sañoon lépp lu ñuy sàkk wala di ko wuti ñoo koy am mais équipe bi moo bëri ay xeexante yu buñ ma contacter dinaa leen wax fu ñuy jaar ba liñ bëgg ñu am ko incha allah. mais fukki gëlëm ak benn nag euh, waaw xam nga fukk ak benn bi dafa am lu ko waral. Hmm. parce que booy seet sax euh, ñii football fukk ak benn lañ. waaw kon da ngay jàpp ne ñu nekk ci biir benn terrain bi ku nekk benn géeme gëlëm lay doon beneen nag bu ci weex bi mooy ki nga xamante ni tey dafa bëri ay xeex yu ñu ne ci moom muy coach bi. Ah. li may wax nii nag bëggoon naa am ñëpp dégg ko wallaahi azim mm. suñ ma wooyee contacté ma coupe bi dañuy ñëw Sénégal. barki alxuraan. Eh, mais jàpp naa ne ñoom ñu dégg mbokk yi ma damay profité rek joxe numéro Cheikh Bakar Mané bi nga xamante ni moom garanti na Coupe d'Afrique bi ñu ko contacté dina ñëw fii ci Sénégal numéro bi mu ngi 77 698 29 28 ma bamtuwaat ko ndax bëgg naa gars yi contacté la ndax coupe bi ñëw fii 77 698 18 29 28 Cheikh bi ba léegi du ñu yem foofu dañuy ji mais dégg loolu a nañ ci seen bët loolu moo tax ma insister Mm-hmm. ndax da nga ko garanti mm-hmm. mais mbir yooyu rek duñ ci am léegi nii actualité bi dafa lëmbee dëkk bi mm-hmm. ginnaaw bi nga xamante ni jàll nañ ci eh, coupe d'Afrique boobu xoy yi dellu wax mais pétrole baa ngi ak gaz bi mu ngi lëmbee dëkk bi coow bi nga xamante ni am na fi naka alhamdulilah man li ma ci wax du bëriwul. may dinaa laalaat tuuti rek si fi ñu jógee. mooy hmm. équipe bi ñu ñëpp ay Sénégal hmm. waaye bu ñu fexee daal ba jokkoo kook man. Hmm. dañ bëgg dinañ kam parce que gis naa jaar naa xool naa xoolaat naa dugg naa xalwa am na yu ñu woon te soxla jàmbur laa doon liggéey. Uh-huh. ba am na lu ñu ma ci won kon nag di wax ne nañu fexe ñu ñu boole ñu si ñi nga xam ne ñu ngi leen woo. man de waxuma ne ñi nekk Sénégal ñi am na ñu ma ci ñu ma ci ñu ma ci ñu ma ci ñu ma ci të mm. wala ñi ma ci ëpp euh, sañ-sañ ci wàllu ñaan yàlla. dama naan fi mu toll nii sax am na yoo xam ne bëgguma di ko bàkkoo. waaye jamono juñ toll nii. équipe bii bu ñu bëggee am nañ ma beneen bi ci des comme ni nga ko war a waxee ci wàllu actualité wàllu pétrole coow li bëri na. waaye nag nañ delloo si xel yi ci yàlla. man laay njëkk a wax nit ñi nañ delloo xel yi si yàlla. ni parce que lu ni loo gis ñëpp di ko daw ko si. coow si ndànk bi nag mooy kus ne gis. benn autorité bu mag ñu ngi koy xeex xeexu baatin yoo xam ne bu sottee àdduna tukki. Hmm? man maa la wax loolu. autorité bu mag. jegewul président ci opposition bi la ne. Hmm. ñu ngi koy xeex xeexu baatin yoo xam ne bés bu sottee dootul wax. maa la wax loolu. dafa am lu koy non moom daal foofu laa am lu may wax te moom la ndawee gën a bëgg moom la ndawee gën a topp na fexee jóg ci boppam. kon ki nga bëgg a wax mooy Ousmane Sonko. ah yaa ko wax. <laughs> déet man wax ma ko yow yaa ko wax. waaw bu dee tey politicien la bu nekk ci mbir yi. Eh, xeexu baati ni ma gis ñu koy jéemal bu sottee ci kawam moom dootu ko nettali. dootu ko nettali waaw. mara détail foog naa ne Ousmane Sonko wala ay ñooñam dégg nañu la Cheikh bi bu ñu jógee foofu dañuy tab bi ci beneen actualité bi nga xamante ni Sénégalais yu bëri dañ ci bëgg gën man damay gaaw. Hmm. laaj la hmm. ndax dañu yàgg a waar nga xam dañ cee teg suñu bët. Hmm. Modou Lo Eumeu Sène. waaw Lac de Guiers ak euh, Boy alhamdulilah man du ma man su may wax damay wax directement ca VIP bàyyi yeneen combat ak ñeneen ñu wax ci. Mm. Lac de Guiers euh, Boy lu ma ci wax. Mm. ndem sax xam naa lu ma ci xam lu bëri. Mm. loo xam ne yegg na waaye Modou Lo. Ah, Lac de sama mbokk la waaye lu ma ci wax. Ah. waaye Modou Lo Eumeu Sène ci lu ma ciy wax benn mbir la. Modou Lo na gën a defar cumbukaayam. waaw na gën a fonk cumbukaayam na gën ko defar. bu dul loolu. tax na moytu jigéen. bu dul loolu. waaw loolu laa koy conseillé parce que li koy gàllaajam lu koy yàq lu ëpp. dina am ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy mel ne ku ko bëgg dugg ci biir mbooloo ma jigéen la ñuy yónni. bu ñëwee mu yàq ay gàllaajam man maa wax loolu man. kon daal bu yeboo moytandiku xam nga xamante ni mooy entourage am ñenn ak jigéen ñi nga xamante ni dañuy nekk ci ay mbiram. waaw. man maa wax foofu laa yem ba lam gi instant ma génn wax nañ koy daan. léegi Eumeu Sène moom lan koy wax. ah Eumeu Sène moom mi ngi ci yoonam voilà yem rek mi ngi ci yoonam. mais su ma la comprendre rek da wax ne Modou Lo moom moo mu toll nii moom moo nekk ci ay jafe-jafe. mais nit ku ne ci mbukaayam gis nga entourage dafa baax si nit. Ah. bëri na loo xamante ni da ut ba am ko. Mm-hmm. ci entourage am la yàqu. Ah waaw comme maa Balla Gaye Modou Lo maa wax ne Balla Gaye da koy daan vidéo yaa fi léegi nag su ma demee ba wax ko loolu dama koy waxuma ko ne ne moom ay galajam baaxul mais na gën a moytu li ko daloon bañ ka dal bu njëkk dañ ko yàqaloon ah, wax loolu alhamdulilah dégg mbokk yéen a ko déggandoo kooku Cheikh Bokar maa na leen koy woowee numéro téléphone am ci di 77 698 29 28 Cheikh ba léegi dañuy xuus li nga xamante ni moom moo soxal doomu aadama ñu bëri ñu bëri ñoo ngi ci àdduna mais dañoo tëju mhm. seen duuti lu ñu laal ñu mel daal mhm. foofu du foofa te euh, hmm. euh, oh, alhamdulilah li ma ciy wax benn mbir la rek. Hmm. mooy képp ko xam ne nekkatuma ku muy présenté ci dëkk bi. Hmm. waaye dama naan soxla jaamu yàlla ba mu am. ak soxla lu mu doon. wàllu tëju. wàllu ubbeeku. wàllu bayre wàllu cat. wàllu gàllankoor su diggante ñaar ñuy sëy ak bépp jafe-jafe boo xam ne nit am na ko su jokkoo man yàlla na ko dina saafara ci kattanu yàlla. waaw loolu yëpp ay gàllaaj rek yoo xam ne bu ñu leen ko defee bu ñu ko xoolee benn xaw lu ko waral. ñoom dinañ wax fu ñuy jaar. man la dama fi toog naa ne nangam gii nangam gii ku def lii ku def lii ñëpp man nekkatuma ku ñuy wax wala ku ñuy présent li may wax mooy képp ku am soxla. numéro baa ngi noonu wooteel dinaa dimbalante ak yow. incha tax. Euh, mais mais bi am na jigéen ay jongama yu bëri dëkk bi waaye jëkkër daf leen të am na ñoo xamante ni dañoo célèbre ay jigéen lañu. Mm. moom moo jafe. lu ci mel ni suñu artistes yi yaa ngi dégg mm. mm. mooy waral am na loo xam ne nag sëriñ bi. boo duggee ci wàllu artiste damay jàpp am na loo xamante ni du ay gàllaaj wala du ay ñaan wala du nangam damay jàpp ne ku bëgg a sëy di nga am boo ay ñaan wala ñaan am na ñoo xam ne bëgg nañ say mm. dinañ ñaanal seen toog ci am na xam ne nag neexuñ te kenn xamul lu ko waxal waaw mais man ñi nga xam ne bëgg nañ sëy bëgg toog seen sëy bu ma ooy naa la ñaanal yàlla si leen ci insha allah ndax yenn saa am rab man su ma la xoolee na xam ne am nga rab te si saa laa la jox loo xam ne da koy jinne te duma ci boole wax te dina dinaa ci boole ak sutura kenn dool dégg. mbokk yi xarit yi yéen ko dégg na kooku mooy Cheikh Bokar Mané moom bi nga xamante ni kenn doon ko présenté fii ci Sénégal ndax kat ay jaloore moom teg nañ ci suñu bët bu la neexee it man ngeen a xoolaat vidéo yi nga xamante ne ko def si internet bi Cheikh Bokar Mané boo yeggee di nga gis na la mu daan wax démb moom la ñuy dund tey Cheikh bi ñu ngi dem si cappaandawu émission bi daanaka mbir yi mu ngi buur lan ngay tàggoo mbokk internet yi nga xamante ni. Ah, ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm parce que mag ñi li nekkoon seen devoir rek def nañ ko ñaanal nañ dëkk bi ñaanal nañ réew mi ba ñëpp gis nañ réew mi am na ñaan li des mooy yàlla nañ ko muurloo ci jàmm ay bañ a am musiba bañ am nee naa waxoon naa ko dinaa ko wax réew mi képp kuy yee fitna yaa ci ëppale kuy yee fitna yow yaa ciy ëppale parce que mag ñi dañuy ñaan ñaan nañ ko pare kon ne ñëpp lépp lu ñu def nañ ko def ci dal ak jàmm loolu laa amoon li may suñu gaal